pour l'instant ci 60 jour yi c'est juste le régime qui a changé parce que euh, indignation yi. c'est pas la première fois mu c'est parce que fële dañ ko doon protéger fii amul ko ko protéger c'est juste ça. mais loolu c'est grave aussi moom laa la wax c'est à dire mooy li xew rek Azoura dañ koy protéger on l'a pas interpellé kii protéger ñu ko c'est juste ça amul leneen par exemple sooy xool démarche yi même dans les indignations. même dans les indignations il y a que Seydi Gassama qui est qui est cohérent avec lui-même. mais déggoo déggoo sax membre de société civile bi yëkkati wax ci comme ñu ci doon waxee dem ak barke démb. Mm-hmm. y a que Seydi Gassama ki a dit que l'État ne doit dans ce piège-là. Mm-hmm. li régime def waru ko def. Mm-hmm. y a que Seydi Gassama mais déggoo membre société civile bi bu jóg taxaw def indignation par rapport à cette arrestation-là parce que lii lañ doon xeex. donte Bah Diakhaté propos yu mu tenir waru ko tenir waru ko tenir. Mhm. kenn du ko kenn du ci ànd ak moom parce que tamit la liberté d'expression ne signifie pas entrer dans la vie privée d'autrui mm -hmm. mais liñ doon xeex démb ak barke démb ñoom ñi accéder au pouvoir ce sont ces actes-là qui sont posés est-ce que tu comprends mhm. gis li ñu war a soppi mooy la manière de penser des Sénégalais yaa ngi koy wax sànq moom bañ koy indil marché bi préfet bind na nangam sànq nga ne ko est-ce que doo yaakaar ne ministre bi parce que c'est comme ça que le Sénégalais pense que suñu interdire marche c'est le ministre c'est le président de République c'est comme ça ki que que l'opposition le pouvoir le, la majorité d'aujourd'hui pensait ba ñuy nekk opposition que suñu convoqué su procureur réagirait c'est le ministre c'est le président de la République le Sénégalais avait l'habitude de dire Macky Sall moo ma mais aujourd'hui ils te diront pas que c'est Bassirou Diomaye moo tëj Bah Diakhaté ni les tenants du pouvoir d'aujourd'hui ils te diront jamais que Bassirou Diomaye moo tëj Bah Diakhaté il dira ils diront que c'est le procureur qui s'est autosaisi mm-hmm. les gens de de, de l'opposition d'aujourd'hui disaient que c'est le procureur qui s'est autosaisi mm-hmm. donc les déclarations et les discours changent en fonction des positions mm-hmm. et ça ne doit pas se passer comme ça te nekk éternel recommencement rek lay doon que nit ki droit bi mu amoon ba muy nekk pouvoir da koy perte ki am nekk au pouvoir da koy am. Mhm. ni mu doon waxee ba muy nekk opposition su nekkee au pouvoir da koy bax c'est-à-dire moi j'ai vu eux ils disaient force rester au peuple aujourd'hui ils sont en train de dire force restera à la loi mhm. les gens du pouvoir disaient force restera à la loi à l'opposition ils diront force restera, restera au peuple. or disons toujours force restera au peuple or j'ai ah, entendu ah, di j'ai or force doit rester à la loi mm -hmm. pas au peuple force doit rester à la loi la loi c'est le peuple non pas force doit rester à la loi mm-hmm. muy baa muy keneen muy keneen muy keneen force doit rester à la loi mm-hmm. et nous tous nous devons être à cheval de notre loi d'accord tant que changé wuñu suñu manière de voir mm-hmm. tant que changé wuñu suñu manière de faire il sera très difficile que ñu def ñu am ay textes yu baax. parce que nos textes quoi qu'on puisse dire. Mm-hmm. sont bons hein ces textes cet article 254 et 255 date de 1977. 2027 50 ans la yam il faut réformer. il faut aller vers les réformes. il faut modifier. bien sûr il faut modifier mais les hommes politiques ils modifient li leen arrangé d'accord. li leen arrangé wu la ñuy modifier li leen arrangé it garde maintenant dans les dispositions et dans les démarches dañuy waxtaan suñuy waxtaan mooy offense à une personne bu ñu jël pouvoir jox ko am na texte yee ko wax mais Dieng Dieng ouais. mais montre-nous un décret qui paie, qui a dit au premier qui a qui a donné ces pouvoirs là au premier ministre merci parce que aussi réew réew suñu bëggee te su nekkee suñu bëggee nekk ñun ñëpp Verneville à cheval des textes et des lois li textes yi wax dañ koy appliquer d'accord